Euh, c'est vrai on a entendu souvent euh, financement financement mais pour vous dire vrai il y a ma balle. Mm. vous les journalistes. Mm. ils ont acheté beaucoup de journalistes. ah. man <laughs> ah, li <laughs> beaucoup de journalistes. il y a de journalistes. Il journalistes a des journalistes qui donnent euh, dañ doon jot par mois salaire. Mhm. de Ousmane Sonko Nous ne pouvons pas faire Ils parce que nous sommes c'est la réalité. Mhm. donc le euh, moment avons fait le système de transfert d'argent parce qu'en réalité dañ lay wax que millions, cotisé n'est trois millions c'est pas vrai Ce n'est pas vrai il faut ngeen vous tout. Copper Express. oui dañ lay gëmloo. waaye Tamba dañu mobilisé mobiliser millions. Hmm. Nous, avons ko koy cotiser été militant lañ daf ñu fa ëpp doole te gagné Tamba mu am Tamba 500 millions am avons gagné 300 millions c'est archi faux c'est pas vrai. Hmm. c'était autre chose que cela. Hmm. mais nous mën nañ c'est un homme politique qui a un discours qui a su capter quand même. Ensuite, il a fait une ascension politique. Quel monde qu'on a tablé et par rapport à ça. Mais malheureusement, il n'a pas pu capitaliser ça. Mm-hmm. Parce qu'il n'est pas rancunier, contrairement. Mm-hmm. Il est au contraire, il est naïf. Mm-hmm. Non, moi je vois, et je ne le dis pas méchamment, je le dis positivement. Ousmane Sonko, c'est un homme politique naïf. Parce que si vous avez dit que vous êtes naïf, vous naïf donc faut vouloir la monnaie wax maintenant pour l'emploi des jeunes moi je parle aujourd'hui à Moudouba, je parle même plus de Macky Sall mhm. Amadou il te parle de prospérité partagée mhm. il dit la jeunesse c'est maintenant aujourd'hui nous sommes en phase de dire tay mën nga def xam industrialisation quand les gens en parlent mhm. mën nga def industrialisation ta a ay infrastructures de base il y a des préalables munoo xëy di dawal avion munoo jënd avion te aéroport c'est-à-dire que nous, ni la doon Sénégal dafa être industrialiser. Mhm. dañ ko nous a xam experts yi fi mais Sénégal dafa war a jënd avion mais balaa ngay jënd avion mais da ngay tabax aéroport président Macky Sall il a posé les bases au Sénégal accès à l'eau universelle on parle à l'accès à l'eau universelle ndakaaru bi assainissement Dakar yëpp président Macky Sall changé mais ça coûte excessivement cher quartier boo dugg gas nañ ko def ko waxuma système distribution eau potable pour Dakar pour les grandes villes du Sénégal le président Macky Sall Il dafa liguer ci au milieu. te li mu liggéey ci réew mi ay priorité la Amadou Ba ñëw xool fa mu jël programme bi né treize réformes état de droit paix renforcement renforcement de l'état de droit oui. réformer la justice améliorer ko une justice va plus d'indépendance c'est un processus Amadou Ba bu pas fait 10 ans man ma ñëw wala kenen ñëw dina ko renforcer c'est toujours un processus inachevé donc il a proposé 13 réformes environnement des affaires mais loolu moi c'est pour l'industrialisation, la création d'emplois. En se fondant, en se basant sur l'agriculture. Le président Macky Sall a 400 000 tonnes a ko 1 million 700 000 tonnes mais loolu ku weddi dafa da Sénégal maintenant le Sénégal aussi devait 15 millions 18 millions les besoins sont là tey def nga BRT suba di Wakam mhm. terre dina dem Thiès dina dem Mbour suba mu dem Kaolack tey autoroute à péage benn bi mu ngi dem Ndar bu Kaolack bi mu ngi caajaay sëñ bi tali Ziguinchor bi ñu ngi koy defar Foundiougne Fatick ba Karang lépp ñu ngi koy defar soxna si mm-hmm. il faut ngeen génn pour ngeen gis Sénégal mm-hmm. taux de courant bi Macky Sall di ñëw cent village boo jël téeméeri village boo jël deux cent yi euh, excuse vingt yi vingt mooy ñaata ci wolof. ñaar fukk ñaar fukk yi ñoo koy ñoo am courant. tey jii téeméer boo jël soixante cinq pour cent. Mhm. am nañu courant bu weesoo soixante cinq pour cent yi yeneen village yi am nañu ay poteau électrique yu leen jox làmp mhm. même bu ñu amagul courant ci seen biir kër yi. Mhm. am nañu éclairage public am nañu seem il a mis en place des universités c'est ça Khalé, beaucoup ko bëggee dimbali. Mhm. lan nga koy dimbale. du jàng tabax ay lycée maintenant l'enseignement du Sénégal il faut le réformer parce que boy boo itam foog ñu wax leen dëgg sëñ bi mënoo sa buntu kër xëy ba tu veux rien faire loolu tam am Sénégal surtout Ndakaaru nak. nag sama sama ni ñun boy town yi mm. non c'est la vérité mm. man kay état bi fa ma koy woo mooy affaire euh, lolu ñuy jaay ci ay sen kopp yoyu diko jox xalé yi lolu lay wax état bi daf ci wara taxaw pour protéger la jeunesse mais jeunesse bi tam dafa wara def effort. Mhm. léegi nak ñuy genn di dem fële jaar ci avion yi dem Amérique. mais sëñ bi ñoñu ce ne sont pas des pauvres hein? mhm. ce ne sont pas des pauvres lolu c'est plus culturel qu'économique. Mhm. c'est-à-dire que kii bi ñuy def nu mu tudd jël gaal gi dem nu mu ñu ko tuddee. immigration clandestine. immigration clandestine boobu c'est plus culturel qu'économique. Mm. motax man mané ministre de la jeunesse waron na def ay enquêtes yu wóor ba Maroc ba fep gennel ay statistiques yu leer. ministre de la jeunesse moom foofu dafa nelaw dafa dafa deful dara. mu dafa nelaw mu nelawul amul. non non daf ci nelaw parce que bi ma gisee ñu invité ko point de vue ñuy wax ci immigration clandestine man suma ma ministre de la jeunesse mais ay statistique yu leer la lay wax. wax la profil yi mais profil yi dem. man xamna ci ay ñoo xamne Abdou neex deug yàlla ils ont minimum des salaires de 600 000, ak de 500 000, mhm. man ma jox la benn cas sama fi ma nekk am infirmier d'état bu démissionné dem. mais c'est la vérité non parce que culturellement. Mhm. man xamna ko koo day jaay climatisation fournisseur. Mhm. dem na. xam naa koo xam ne téléphone yi yëpp moo ma ko jaay dem na matériel informatique lépp daf ñu ko doon jaay dama ko ni mais foo jëm seen seen réew neexul xam nga non du loolu c'est culturel soxna si man depuis 2002 maa ngi liggéey amaguma kër amaguma kër leb naa banque BHS jënd terrain njaayloo

da ngay jël escalier bi ba egg. Mhm. mais boy dañuy bëgg jël ascenseur. voilà lool nak moy indi. pour ñom dañuy dem Europe si saa si ñu am. Mhm. buñu démé Europe gagné xaliss légui dans leur tête bu alors que c'est pas le cas. Mhm. li ëpp solo ci boy moy suñu programme lan la moy li nga xam président Macky Sall def nako ci xëy ndaw yi 65000 emplois créé nako ko xëy ndaw yi deux phases yëpp résultats yi ci am baax na. 500000 la la 3 PT. 3 PT non xëy na daal waxuma. son programme politique employé daal 500000 la woon je parle waaw xëyu ndaw yi kay loolu ci cinq cent ba ci soixante cinq loolu kay c'est honte mooy waral xale yi di dugg ci géej gi ba noppi mu jël suñu géej gi ba pare ne baykat yi yéen suuf ngeen soxla sax dootuñu leen ko jox déjà li ngay ci de géej ngeen yi ñu jël suñu code yeeg ma xamul xale yaa ngi ni di dugg ci géej gi boo demee nangaan doo gis Rufisque doo gis Bànn doo gis gis ngeen bëgg a fii ngeen bëgg ngeen bëgg a taxaw fii di wax loo xamante ne kii nit koo ne day wax ci vide vide sans nga am wax ci vide man wax lu man dama la yàgg a topp tey yow man gisuma ma dara lu palpable da nga am man problème man man dama la yàgg a topp dama dama la a topp lan nga mës ci man mënu ma ci yow dara xam nga laa ma dara mooy sama rôle sama waaye loolu kenn werante wu ko ki lay wax toos xam nga lu ma wax daal mooy damay Matam dama ne. non man maanaam dañ lay suivre eh, daal je pèse bien mes ah, mots dañ koy topp. quand je moom daa jug di wax nit ñi mën a rafetloo moom bu nit ñi dama bu nit ñi mën a rafetloo. non j'ai pas besoin d'avoir xam-xam bu dee xam-xam moom mooy nga jàng te Sénégal jàng gi mooy. del jàng ba ba ba yëkkay di di nit ñi. gëm yàlla la am ngor mais ñi jàng ñu ci bari mun nga cee génn ngor moom daa jeex ci ñoom ñi fi jàng ñëpp laa la wax les vrais diplômés ngor newul ca ñoom am nañ jom nag jomu xëy dem liggéey waaye jomu ñëw sàcc y a une différence entre jom ak jom de il faut que nit ñi bàyyi ci xel askan bi bu ñu leen doon bàyyi xel yu ci bari kenn du leen koy def Donc, di encourager les c'est-à-dire xalé yi ñoy bëgg jël essentiel parce que dañoo nekkatul ci atum yi ya d'accord mais s'il te plaît. voilà il faut que ça soit clair. Euh, mon frère pour l'emploi des jeunes je pense qu'il faut régler mhm. l'employabilité des jeunes Moi, ISEP yi nga xamné président Macky Sall def nako mhm. Amadou Ba dina def dans tous les départements mhm. benen il faut repenser l'éducation parce que mënoo jël nit